li mu bëri ak li mu yaakaar amu ci. léegi ñu joxe drapeau bi ah Pape Mor loo jox la sa drapeau ñu wax ah yaa bëgg di nga wax ah mais lii lu mu Ndeye ah, Soda jógal joxal ma ko drapeau baa ngi baa ngi noonu ajaratu ndiku cuun ajaratu soodo buso ñu jox ki nga xam ne moo di Pape Mor Lo bi mu jël ci Tafa Boy Bambara Tafa Boy Bambara nag nee na dina recours waa ndeysaan Ndeye Marie Ndiaye Gaw seen kóllëre bi amiin yaa rabbi Pape Mor moo ko jël tewel yëpp am defe naa nag gis nga ko Assane Ndiaye def lu baax ñoxo ñoxo ñoxo ñoxo mais ñoxo ñu ngi kontaan lool ndax te ku ne xam ne ku ne xam ne Ndeye Marie Ndiaye Gawlo waaw ci drapeau ci lambu Assane Ndiaye ci la mujjee ci lamb ah. dimanche la ci ñëw gaañu mekri kon bu defee nii tubaarkàlla xam lu ma cee wax sa du bari damay bàyyi doomi ndeyam di xaritam ma jël lépp jox ko ko muy ñibbu waaye kontaan na ñëpp taxawal rek dinañ wax waaw Ndiku. waaw bi tubarkalla macha allah ñun ñëpp ci kontaan. Mm. waaw ndax su ma yeboo ne Ndeye Marie. lambu Assane la mu jéeway. am. kon bu ko Assane Ndiaye tuddee drapeau. tey lii ñun la ko defal. te nag nee ko nag li nga def nii yal na la yokk yal na nga yokk ba yëkk ci barke Sëñ Fallou Mbacké. Abdoulaye si rek malaw bee buubu ku malaw bee Birahim Yacine Maar Gawlo dem na. Abdoulaye Daaro Mbaar sama seex ba dem na. maa ngi koy jaale. Bougane Dari Gueye maa ngi koy jaale. Malick Gakou. Eh, maa ngi koy jaale Maria Sine may maa ngi koy jaale Youssou maa jigéen Sira Kumba Law beek bubu Kumba Law bi maa koy jaale Asar Njaay mi ko tudde koy jaale Bekay Mbay ma faali Kumba ma tax baa na. waaw bi ku anniversaire bi kañ la. waaw Bécaye ma profité ci bi. waaw sama anniversaire le 13 juillet la. du te sec. du te sec maa ngi woo artistes yëpp. di woo nag amateurs yëpp. dinañ ci ñëwaat. et na et bon Pape Morlo. voilà. ay waay bi plateau. et eh, waxal rek garaw. waaw bi seen rek. bi ma. père xool leen fii. <laughs> père xoolal fii 4 moo ma dese ma joxe antenne bi. waaw maa ngi gërëm Bara na si combat bi di gaaru Moussa xaar leen xaar leen non non xaar leen non non non defal ah. eh, na wax wax jé békay nañ wax wax eh pam waxal Serigne Saliou daanu ma dama ne leen dama ne leen législative Pape Mor gaawal damay joxe antenne maa ngi gërëm jàmm na si combat bi xam nga di gërëm Moussa si maire parcelle di gërëm Ibou Diamé di gërëm Grand Sidat gërëm Omar Ly xam nga madame Paye madame Sow mi euh, responsable politique madame Paye bu Padois maa ngi koy gërëm jàpp na si combat bu baax di gërëm ñi nga xam ne jàpp na si combat bi ñoom grand zil xam grand yoo xam ne jàpp nañ si combat bi ñoom Aïda Bois ñoom ñëpp xam nga jàpp nañ si combat bi maa ngi gërëm ñëpp di gërëm grand Doudou waaw si bi sa waa coori ci père xanaa bàyyi ma di gërëm nag sama fan si club bi yëpp quoi waaw waa Tëngéej waa eh, eh, man jullit laa waaw man dama damay daan waaw may daan kii bu ma daanee damay nangu na dama daan waaw mais kii dañ bëri mais déedéet. daanu wa mais pour mais dama koy jël daan ka ci biti. arbitre ci waay ban biti. waaw dama lay laaj ci biti la moo. waaw d'accord mais mais déglu ma action bi fan la commencé. si biir si biir. waaw ma jël ka daan ka. waaw arbitre bi oowaat nu. waaw fi may tiba suuf pareegu ma. mu daw songa ma man pareegu ma. xoolal fii xoolal. waaw parce que da dafa yomb te trop la daane jaaxal na ma. non non mais dama koy jël xoolal dama koy jël daan ka xoolal lii waaw na waxoon na dëgg waaye dëgg moo neex yàlla waaye bu fekkoon ne si biti laa ko jëlee daan ko si biti nga mën a wax mais si biir laa ko jëlee si biir daan ka. ah waaw nañu waxoon na dëgg nañu waxoon na dëgg quoi. doy na waar nañu waxoon na dëgg léegi yow loo ci non non man dama préparé combat bi 5 mois. bàyyi lépp di ko préparé xoolal xoolal action bi xoolal action bi xoolal action bi fii xoolal action bi xoolal. xoolal est-ce que arbitre bi sifflé wul non non war bi sifflé arbitre bi sifflé wul. waaw kii bu ma daanoon damay nangu ne daan na ma mais nag. jàmm sono yàlla fay. man gëm naa ne gàcce nga ndax bëri naa nga lu rëy. non xoolal xoolal bi dina ma ko ka bu ma daanoon damay nangu na daan na ma ma daan ka falaa kër ka ba mu jéegu. ama jërëjëf dañuy delloo antenne bi gis nga xam ne làmb ñaa man man xaw ma lii quoi. da ngay jël préparer combat bay bëgg a dee. matin au tey ñëw ñu xañ la ndam nii quoi nga jël 5 millions yëpp ferega si mais nag gàcce ngaalama a man gëm naa la gàcce ngaalama man gëm naa la man kenn ma ree barki Serigne ah, Saliou man kenn du ma ree ah. nañ wax na dëgg a nañ defar làmb ji làmb ji yàqu eh, indil ma lacrons di gërëm nag ñi may jàppale ñëpp ci combat bi bàyyi nu après la jël bantamba sama waay di courage yow tu es mon eh, indil ma lacrons waaw yaakaar naa ni loolu mooy li nga xam ne moo fi am Daouda ñaari kat. waaw ñi gërëm ñi ngi gërëm eh, ñëpp di sant ñëpp. sant sama sëriñ Cheikh Mourou Kora di sant waa Touba sama yaay ak waa Touba. waa waa waa da waa Darou Rousse ñu ngi leen di sant leen gërëm ak waa Touba ñi nga xam ne ñi ngi seetaan ñëpp ñu ngi leen di sant di eh, leen gërëm di gërëm ñëpp ñuy jàppale di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di gërëm nag waa quartier Mame Diarra ñoom Assane sama gaay yëpp ñu leen di sant leen gërëm di ma saay maire Faye maire Faye maa ngi leen di di leen di gërëm sama xarit sama xarit Cheikh may nu ñu joxe drapeau bi le xam na bis bi daal wax dëgg yàlla jaay yëpp jàpp nañ ci ñi ñi ngi sant ñi ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci bis bi waaw waaw sant waaw sant nañ ñëpp gërëm gërëm waaw dafa am gars yoo xam ne dañuy dañuy bégee tout le temps dañuy bégee tout le temps wax dëgg mais suñ fi ne rek moo fi teewal Pape bi moom jàpp jàppale et eh, Lac Rose toogal et eh, Lac Lac sa adversaire d'accordul ci victoire bi looy wax waaw balaa wax dara sant yàlla pare di jël sant bi di ñaan samay waajur bu baax di bëggee waa ñaari tali Grand Dakar samay supporters aw ma seen fay père barki Seydouna Mohamed. mais tey am nga lakkantaan. non du question de lakkantaan. Ah. ni mu la bëree. barke Seydouna Mohamed dama xam su ma deful noonu du ñu bëree foog ma bàyyi ko mu ñëw ma bëree moom. waaw su ma bàyyi ko attaqué. ah yow yaa ko attaqué waaw man maa man maa man maa foog ma attaqué ko. mais yow si chute bii. est ce que arbitre sifflé na arbitre barke alxuraanul karim arbitre dafa sifflé. sifflé na ñaari yoon. ba pare sa kii yi mbiskitu mbiskitu jéego yi nekk foofu. waaw ah. si la si la sama tànk tarxiis. Ah. mais ba suba du si daan te dañoo at mu dem mu dem kenn xamul ay laaloo lañ ko diw kenn xamul lan loolu tax damaa jàpp ba sonn mënu ma jàpp foofu. waaw bi mu may pakate foofu boo xoolee. bi mu lay pakate fii. waaw mooy fii damaa jàpp ba sonn. waaw gis nga li mu bëre gis nga li mu bëre arbitre yi jóg. gisoo arbitre yi dañoo soufflé bu yàgg. gis nga saako yéene saako jéego yéene moom gis nga yéene yéene si ginnaaw moom ma tarxis loo moo la tarxis loo mais ni mu la bëree loo ci wax waaw ni ma bëree ni ma bëree moom sam bëri la quoi mbër la mbër la mais ci sit bu mujj bi mu ne da nga koo bett arbitre bi dafa sifflé muy day wax rek génneel sit bu mujj bi kañ ñu xool eh génneel sit bu mujj bi li bett la waaw mu ne da nga fay bu suuf li bett la dama xut ah da dama ko dóor góos laa ko jam dóor ko croisé droite mu detteelu naan dama lii. waaw ah. xamal xamal la dafa am yoo xam ne jaroox père. waaw ah. maa ngi gërëm waa Wakaam. waa Yoof. Ah, euh, waa Asxaabu Daara Asxaabu sëñ Modou. dafa jàpp ci làmb ji bu baax baay baaxee dafa ma woo ba ma ñëw mu tëj ma néegam barki Seydouna Mohamed ni ma Lac man dama la jàppee ni man maa yow yaay man billaay wallaay di di di ma ñaanal ay ñaan yu garaaw per caat tamit damay profité si occasion bi quoi. loo koy caat caat mbër la xam nga baax lu ma la. mbër mbër dina am fooy toll am ay tolof tolof. xam nga mais barki Seydouna Mohamed. mbër boo champion la champion ba léegi boo jógee fii loo wax. waaw man moom waxuma dara ko maa ngi toog rek. sa génération ñu ngi fi de xanaa léegi war naa jot nag ay Boy Niang Sa Thiès. waaw am ah. na am ñu gën a ñu raw ñooñu sax. Modou Awa Modou Anta. waaw ba tey yow ñu ñoo ma de man amul mbër. Ama Ama Ama xanaa déggoo ma amul mbër boo xamante ni dama lay dama lay moytu wala ma lay bàyyi xel. Ah. su ma ko nar a def ma teg sama ngemb barke Mouhamed kuñ ma jox ma bëre. kon la jox nga bëre te kenn mënu ma si. dinañ la jël demee Bantamba tey temps bi moo nu dab xam naa ne dañuy rendre antenne bi ki fi teewal Pape Diop. Pape. Ah, waa Bégaay ñu ngi leen di gërëm di leen sant Pape Diop euh, ñëpp xam na ne bés bi. mu ngi gërëm Assane mi nga tuddee làmb ji. ndaxte Assane tey dafa gis Pape Diop mu neex ko mu bëgg ko. moo waral tey mu tuddee ko bés bi donc mu ngi nee na mu ngi ñaanal Rack Rose di la féliciter yow tamit ak El Hadj Ndiaye. Ah. parce que ñu ngi koy wax monde bi yëpp. waaw ñëpp nga naan ko ñu ngi seetaan làmb gi. ci 2STV yi. et puis muy ñaanal immigré yeeg ñëpp. waaw euh, yàlla defal leen jàmm ñëpp xam nañ ne tey euh, ñu ngi si campagne bi. moo waral tey waa Thiès ak ñëpp ne ko dañu la namm il faut nga teew fi moo waral mu xaw a guddee. waaye daal mu ngi ñaanal ñëpp jàmm. pour ñu dimbali ko. Euh, Sénégal yàlla may wàccee fi jàmm. jàmm xéewal yàlla guddal fan yi. ah fan te moom li nga yéene Sénégal le premier incha allah. Sénégalais yi wooteel ko. wala eh, bu fi campagne électorale. alaaji Papa Dia kàddu bu mujj. mooy rek bëgg ci bés bi. bëgg tamit ci reportage bi. bëgg ci bëri bi bëgg tamit ci promoteur yi nga xam ne ñoo organise làmb ji. bëgg tamit ci invité de marque bi ñu am muy El Hadj ak ki nga xam ne moom lañ tuddee drapeau bu mag bi muy Pape Diop. def katu lu baax defe naa ni mbay euh, liggéey bi rafet na ñëpp bëgg nañu yàlla yàlla yokk daal jox rendez-vous le 15 ci combat bu mag bu ñu di ñëw am na ñaari événement benn bi kër Gris Bordeaux la bi ci des kër Modou ku ci nekk ci ñoom di nga organiser benn manifestation ci biir 2STV ñu teg fa marraine bi moom tamit ñu waxtaan ak moom waxtaan ak moom ci lépp loo xam ne jëm na ci làmb ak ñi nga xam ne ñoo tëgg làmb ji mu di WWR ak Luc Nicolas Enco loolu mooy li nga xamante ni moo fi am waa champion di leen leen jël ci bantamba ñu waxtaan ak yéen waaye benn kàddu rek deux secondes làmb ji xumb na sàjj na waaye ku mu rëcc ñoo ngi leen di jox rendez-vous lépp a ngi ci biir champion magazine bi gën le